قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون neel yoreluma sama bopp njëriñ walla lor lu dul la soob yàlla te su ma xamoon kumpa kon dinaa bari xéewal te lu metti duma dal man daal nekkuma lu dul ab xuppekat di ab béglekat ngir nit ñi gëm ñi